ci jërëjëf euh, jaajëf Abdoulaye Diop euh, jërë ngeen jëf euh, internet yeeg auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen di déglu li nga xam ne mooy journal des faits divers xalaas ci RFM 94 point Ahmed maa ngi lay delloo ziar gi bu baax Ababacar ma it am mbégte gisewaat ak yow. Mhm. di nuyu waa Sénégal fu ñu mën di nekk muy fii ci réew mi di ñi ci jaspora bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm ñaanal leen nga ñaanal leen wér mais ñaanal leen également sutura di la wax ne la dañuy màggali ngaabu. dangay ngay dem Ngaabu. waaw du publicité nag mais. Ngaabu dañuy màggal le onze. le onze bi le onze décembre bi. Hmm. waaw wax ma rek yow yan condition nga bëgg ma invité la ko. ok invité moom la neex kañ dem Ngaabu kay boo ma ko moom dañuy ànd. moom moom Ngaabu ah boo ñu waajal le onze. sañ ma ko bañ moom. du publicité nag dégg nga. Ah, ah, sama dëkk ñooy màggal ma di ko wax. dëgg la waay dëgg la de. olof ne lu lu lu bokk ci gétt gi. da ngay ku bokk ci gétt li. naan ci meew mi jeex na. mais ban heure la. màgg gi waaw yow jëlal ba su samedi bi yëpp <laughs> neuf heures ci suba ba la lan ci fajar gi yàlla baax na yàlla baax na paas maa ngi lay siyaar daloo ziar Ababacar yaa ngi am jari ñu ngi sant de maa lay nuyu di nuyu Ndiaye jërëjëf ziar waa ngaabu yëpp gàmm gi samedi fa la ñuy yóbbu mooy loolu day dóor samedi fa la ñuy ñu ngi wax de sax yaa ngi sponsor googu maa ngi nuyu de Ndiaye ki dafay laaj hmm. ndaw si daa samp samp ben laaj hmm. daa am benn waay bu muy bëgganteel hmm. ba ñu def farata mu ngi fi affaire xol mu woo benn waay ñu boole ko benn listixaarkat kooku ne ko kii seen diggante bëgg na la bëgg nga ko mais boo leen ñaar faw kenn dee ci. Hmm? ah mais loolu waxu lan la. waxi seetkat la mais buñ sëyul sax faw kenn dee ci. yaa <laughs> war na maa xool naa ma lu. Ah, <laughs> <laughs> sax faaw kenn dee koy gaaw a dégg yéex a dee ci. léegi nag léegi mooy Ndiaye. Ah. bon damay laaj nag man aussi damay laaj dong nag. Hmm.

léegi ñu boole ma ak kenn pour mu seetal ma ndax suñu rawaan dëppoo na ndax moom daf ma doon wax kenn daf ma bëgg takk comme jabar léegi kooku ma doon seetal ndax suñu rawaani dëppoo na et tout saa dañ ma boole woon ak moom léegi moom moo ma moom baax na bëgg na ma torop waaye su ma sëyee moom man ak moom kenn ci ñun dina feebar feebar bu metti wala mu génn àddina léegi nag wax jooju di ma travailler sonal ma torop te bëgguma ko bàyyi ndax bëgg naa ko lool. man daal man lii la ma wax lii laa ci am dama woo ne ma kooku seet naa ko seetaat naa ko seet naa ko ñetti yoon gis naa ni bëgg na la. gis naa ni fonk na la te aussi xam naa ni bëgg nga ko mais daal lii moo ci am seeni rawaan dañoo dëppoo wër yéen ñaar boo leen seeyee kenn si yéen dina feebar wala kenn si yéen mën na cee dee. lii la ma tegal lii mooy wax ci loolu nag daf ma jàpp tellement. xalaas. moom mi ngi ñuy dégg moom mi wax ne. man tamit da laaj naa de. ma ne moom miy wax ne mi ngi ñuy dégg. waaw nee na ko na dem sëy. mu ne laaj naa de. bu ngeen sëyee foo kenn dee ci. même bu ñu sëyul sax il faut kenn dee ci. mais ñaata at la wax nii bu ñu ko sëyee il faut am ku ci dee. Eh, te waxu te dina la wax ñaata xam nga tamit xam nga tamit ñun. Euh, dañ ñuy nax rek ci yu bari parce que mën na ne bu ngeen sëyee am ku ci dee fekk na fii ak 50 ans la wala fii ak 60 ans. waaw d' accord moom ah, non xam nga sax moom boo maanaam boo gisee ni mu waxee. Mm-hmm. xam naa peut-être sur le court terme la ko wax. Ah, maanaam du dul yàgg ci ndem bi la ko foofu. bon am naa ci ci début mariage parce que moom voilà ku yaal ay nit moom bu ñuy bu ñuy dund faaw faaw dañ ci faatu eh. bu ko nee bu ngeen sëyee am kenn ku ci dee sa veut dire que na lu jegeleex mais lu mu ci mën di doon ragal yëpp yàlla la mm-hmm. yow bëgg nga ko mm. bëgg na la te man nga sëyal ko moo gën dee deete sëyaloo ko dëgg la de waaye ah? sama laaj bi yow Oustaz Ndiaye waaw <laughs> mooy est-ce que xaar maanaam comme ñuy xool naan ndax seen bidéew yi ànd naa yooyu noonu est-ce que obligation la ci sëy ah. ma léegi ma laaj non tontu Euh, non mais ku nekk da ngay def di dal sa xel wóoruma ndax diine ko santaane wóoruma ndax santaane woo ko mais yow fi nga jaar boo amee rakk fa nga koy jaarale lu nga koy digal. boo amee doom boo amee doom fa nga koy jaarale. noonu lay demee noonu lay demee amaana man mi ko def wala abaa mi ko def wala yow mi ko def. suñuy kilifa ñu ko digal. Mm-hmm. ñoom it seen i kilifa kilifa moo leen ko digal. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax obligation la ndax lu diine santaane la réew mi moom dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy seet leen arrangé rek ñu diine woo ko exemple bu ndaw. da ngay gis ku dajalee jabar boo waxee ñu ne sama diine may na ma ko ba ci ñeenti jabar sama diine may na ma ko li ko diineem sant di julli juróomi waxtu mënu koo matal dañuy seet li ñu arrangé ñu diine woo ko mooy comme li nga laaj nii rek. Abdoulaye Anne onze ans am dëkk bu la ci Mbour zone résidence euh, papaam tudd Amadou Anne yaayam malaado ba dafa réer depuis huit jours pour ñu dimbali leen euh, ku leen gis ñu woo ko ci 78 294 35 09. Abba. Mhm. Pino ba tey Abba. ba tey. abaa deel yem ci pino bi rek. mooy borom kii mooy portable. Mhm. borom douze yeeg x yeeg mhm. yooyu partage yeeg statut yeeg. contact yi moom ay yan portable lay teg di. x ay iPhone onze ah douze techno jaay man laaju laaju na mor <laughs> alias pino tur boobu la ma joxoon am ñu bëri bëri ku nekk ak tur bi mu la jox il s'est trouvé que ni man dama soxla ay ay ay portable trois portable sur soxla moment non bëggoon dugg Dakar wax jot sama ma fi en plus prix bi boo prix Sénégal euh, nañu différence largement vu que 72 heures je suis dit que pourquoi pas mu jox ma direct ma woo ko mu expliqué ma nu muy liggéeyee da ngay joxe xaalis 72 heures ñu livré la say bagage su ma si sama jarbaat boobu comme que xam na ko ndax ci échange dañu xamante la ma si di ko su ma ci dugalee sama xaalis itam du ko ñàkk parce que man man dofeewu ma dof boo xam ne naa ku ma xamul wala ku ma gis ma koy jox sama xaalis intermédiaire la te je pense que ñi mu dóor itam ñoom ñëpp noonu la leen dóoree benn intermédiaire la moo dox seen diggante ak moom mais man en personne man maa ko envoyé

man sama sama papa homme de tenue la sama yaay euh, politicienne la affaire yoy di yéeg ak wàcc yéeg ak wàcc bima ma demee ba mu affaire bi commencé ma sof sama me dit que pourquoi pas ma porte plainte parce que li may wax nii ça fait trois mois le vent bi am trois mois trois mois le vent bi am trois mois wii moom nekkul Sénégal négocier rek nga doon am nga man am ak moom loolu moo tax ñu doon négocier bi ma demee def plainte fekk naa fa itam ay plainte cela veut dire que lii nii nekkul ne maanaam erreur la ci moom kon loolu lay liggéey arnaqueur la loolu la def comme métier. xalaas. maanaam ñun bi ñu fi indee nu mu tuddati. Euh, Pino. ci la ci la ci la ci la ay ay affaire am commencé di sulleeku benn benn. Mhm. waaw léegi eggale. ba mu waxoon ba mu waxoon ni moom dina dina leen woo. waaw fay leen ba léegi fayu leen. wax na la woon nga arrêté ba mu mën lijjanti leen. nga arrêté te moom lijjantiwu leen nii ba tey. réagirul sax. fu mel ni ba tey moom histoire am la de ah. li des daa li des mat na mat na sax. nañ déglu déglu. man bi ma ko xamee man koy am man koy xam si interve intermédiaire ak sama benn xarit parce que kooku noonu la ko xamee tamit ay publication la gisoon ma gis ko xam naa ñoom ñoom ñaar mu dem ma tissé lien wu ak euh, xale bu jigéen bi ba kooku def ay statut bis laa gisee statut bi si moom ma laaj ko ne ko euh, fan nga xamee kuy jaay portable yi te mu ne non non portable man jaay ma ko kenn sama benn xarit la rek moo ne naa ko publier soo bëggee mën naa jox numéro am si la ma joxee numéro am ma contacté le gars bi ma ko contacté ñu def suñu présentation mu ne Pignon la la tudd euh, mi ngi dëkk France la nekk day def ay portable moins cher et tout tout bi ma ko gisee nag prix bi day alerté bi ma gisee prix moins cher ma laaj ko le pourquoi genre mel noonu mu ne ma non moom comme que xaw ma si affaire xaw ma bitcoin la nekk xaw ma portable yi du génn euh, xaalis boobu du génn léegi loolu lay utiliser pour mun a am portable yi pour mën a xaalisam génn quoi parce que bitcoin xaalis virtuel la genre mel noonu il faut nga jëndee ko ay matériel pour mu feeñ donc du coup moo moom koy a récupérer xaalisam noonu noonu mu jox ma ay différents portable yi muy jaay prix yi quoi léegi si laa am sama ñaari collègue yoo xamante ne ñoom dañ doon bëggoon portable yi quoi benn XR ak kenn ku bëggoon dugal benn 11 pro pour mun am benn 12 pro max ñu dégg d'accord si ñoom ñaar kenn ki war a joxe 100000 francs keneen ki war a joxe avance bu 200000 léegi ci loolu Euh, si quelqu'un qui m'a envoyé avance 200 000. il a avancé avance 75 000. je l'ai envoyé, il envoie 275 000 entre temps mu mu soxla woon mu amoon nee na ma non fu mu fu mu nekk du amul ñu orange mu parce que guddi la ndax du ma ko mën a envoyé vingt mille mooy deux une semaine après quoi parce que tissé nañ lien yi parce que man comme que maa nekkoon garant bi il fallait woon tey jii ni ma koy suivre à la lettre plus sama xaalis plus vingt mille yi ma ko aal muy deux cent quatre vingt quinze mille par la suite mu ne portable bi trois jours lay def loolu taxoon sax ma gënoon ko mën a am confiance yu ko bi ma ko yónnee loolu trois jours après may xaar di xaar bi ma ko wooyee su ma koy woo mu ne portable yi euh, aéroport la nekk montant portable bi ko

ah, parce que comme que comme ni lay wax rek bés bu ñu lay door cuune ngay doon voilà en grosso modo loolu la woon bi ma demee ba si biir nag laa xamante ne ay maguy la parce que am naa cousin ak cousine yu yu nekk Maroc bi ma koy bi ma leen envoyé seen photo waaw dañoo sax yéemu balaa mel nañ man nga avant genre mel ñun ñu fi nga ñu ba tey. dama ne la kii ñu ngi ci lan ñu ngi ci décembre. waaw ah. deux mille vingt ba deux boo koy xaas du jeex. ba léegi. ba deux waaw du jeex. ak moom. waaw ah. ba tey nit ñi ngi ñëw ci yow di wax. ma ne la ba deux mille du jeex. waaw léegi ñun moom deux mille vingt et un gi dañuy yem moom nag. man man man man man dinaa dinaa dem ba kii. Ah, ah, ah, am na sax am nañ yeneen yitte. dinaa dem ba yeneen xalaas ñeneen ba ci arbre de Noël ba. mais quand bu nit ñi bu lee leeree ni nit ñi ne kii day lekk seen xaalis xanaa duñu yóbbu ba ay deux mille vingt deux de. parce que duñ jël deux mille vingt trois sa abaa. mais moom dina arrêté wala. nit ñi am na ñuy laaj ndax moom mi ngi ci réew mi ma nga bitim réew. moom kenn daa xamul ndax Maroc la nekk wala Angleterre wala France parce que numéro yëpp bu teyee ñu ne mi ngi Maroc suba ñu ne mi ngi Angleterre ginnaaw suba ñu ne mi ngi France. nit ñi yeew na quoi. ah quand même chaque fois dañ maa nax dañ maa teg dil dañ ma lii parfois nag nga xaw a metti xaw a teg ñàkk kers xaw a teg lu metti bañ a yomb a nax quand hmm. chaque fois même histoire yi ñuy ñëw. kii tiriande na kii kii dóor na kii bu ko defee ñeneen ñi ñu dóoroon ñëpp génn ni ak man ak man ak man ak man quand même. mais mooy mooy wax fi keroog rek daan daan ñoo xam ne du ñu wax. balaa ñuy wax rek foo kenn wax mën nañu ko toogaane 15 ans xam nga ñuy wax fi ci waxu waxu waxu waxu bi fii Ndiaye ba ñuy naan magam mag est-ce que magam laag est-ce que nangam ak ba ñu ko bëri fii femme koy dundaale toog ne tekk ñi dundaale ay affaire de viol yi toog ne tekk. bu ñu waxoon saa yi ñooñu bu ñu waxoon xam nga kii ngay wax 2021. 2023 nga jëm ak moom. ñii seen papa yi ñii seen professeurs yi ñii ay proche ay oncle ak ay proche yoo xam ne ñoo leen koy def te mun mënuñu koo wax. c'est grave de. yaay li xew ci réew mi. doy na waar te suñu doom yàlla na leen yàlla sàmm rek. doom yi seen papa yi bokk papa la bokk ndey ba bari nañu de. benn benn ngi fii moom nag ak rëy ay beneen xalaas na